parce que man waxuma ak ñoom yow laay laaj dama ni loolu noonu boo demee ba nekk ci pouvoir buñ la ko defee di nga xam lan lay signifier loolu rek laa bëggoon xam madame la ministre nga bàyyi ci xel bu baax bis ñu leen ko defee merci beaucoup. Je vous remercie, chers collègues. Abbas Fall, vous avez la parole, suivi de Serigne Abou Mbacké Thiam. ça. Merci beaucoup. Madame le ministre euh, des Affaires étrangères, ñu ngi lay nuyu di la di ñaanal yàlla defal la ndam ci li nga xam ni moom lañ la dénk vous êtes euh, partie de ces femmes de valeur ñi nga xam ni yàgg nañu taxawal seen réew à l'étranger Donc toutes ces questions qui sont soulevées ici ne sont pas nouvelles pour vous et je sais que vous allez apporter les réponses qu'il faut. Je voulais aussi en profiter pour euh, saluer mon frère et ami, le secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, monsieur Chérif Diouf ki mooy borom wër nomb ki moo wër nomb Macky Sall ba mu jóge fi di nuyu aussi mon frère et ami Yankoba Diémé borom Bignona qui fait un excellent travail. Vous êtes notre compagnon d'infortune, ou de fortune selon, mais il va vous falloir être très stoïque à l'Assemblée nationale, parce que nous autres députés, quelquefois, avons des comportements curieux. Madame le ministre, dama bëggoon ñu dellu si un peu sur euh, une question qui souvent soulevée, qui a été soulevée deux fois par un collègue. Apparemment, xam naa peut-être il ne maîtrise pas un peu les rouages juridiques mais je tenais à dire que ñi nga xam ne dañ leen wax dañ leen tere ñu génn mais le procureur a fait des soins transmis loolu kay ñëpp xam nañ ko et puis dañ ko yéex a def sax parce que am nañu jot a rëcc madame le ministre maintenant ce que je voulais savoir par rapport à ça ñi jot a rëcc vous en tant que ministre des affaires étrangères Est-il possible, dans le cadre de la coopération avec certains pays où ils sont partis est-il possible de les faire revenir au pays ça moom madame le ministre il faut que ngeen jàppale ñu ci donc yéex nañu tëj frontières yi soit transmis yi yéex na parce que bu ñu ko deful woon am na ñu doon essayé sax seeni gàllaaj yaakaar ne bu ñu demee dañ seront invisibles mais dañoo dem ñu dellu si leen euh, quelqu'un l'a dit il a raison hein il faut pas faire les mêmes erreurs que Macky Sall il a été 12 ans avec Macky Sall c'est maintenant qu'il nous dit qu'il faut pas faire les mêmes erreurs que Macky Sall donc que que, que, que, que Macky Sall. Madame le ministre, il euh, y une question qui peut être sensible quand même, mais de plus en plus, gis y a beaucoup d'étrangers qui viennent de, la, de pays voisins, de pays amis, mais quand même euh, Ndakaaru bëri na trop trop ñu leen gis un peu partout dans la rue ñii ñu ngi ñu ngi yalwaan ñu ngi def seeni besoin dans la rue c'est un nid de euh, ya la prostitution il y la criminalité on va être très amis avec euh, avec nos voisins mais madame le ministre je pense que loolu war nañ ci jël nag quand ay matuwaay parce que Ndakaaru la capitale boo fi tourné fépp ñu fa lal ils sont partout wax dëgg yàlla loolu war nañ trouver vraiment les moyens pour que quand même que loolu ñu ñu wàññi bu leen di delloo seeni dëkk ñu delloo leen seen le Niger l'a essayé le Niger l'a fait et pourquoi pas nous Dakar ne peut aussi euh, euh, parce que nous sommes très gentils Dakar ne peut pas être ce qu'il actuellement Madame le ministre, par rapport surtout aussi, euh, nous aurions souhaité que la diplomatie soit ce qu'elle a toujours été. Et là, mon wax deug yalla je rends hommage à nos amis socialistes parce que quand même on avait une vraie diplomatie. C'est après que cette diplomatie là a évolué, ñu politiser ko à outrance que fii ñi fi nekk ñoom Chérif Diouf ñii ñëpp ils ont ils ont vécu le calvaire avec avec avec les gens qui étaient censés les protéger à à l'étranger. donc loolu aussi war nañ ko xoolaat dañu bëgg am une vraie diplomatie madame la ministre une diplomatie qui ne mais pas pour les intérêts euh, donc d'un seul d'un euh, téléphonique war nañu xool aussi en naka lañ mën def yéen ngeen waxtaanee seen biir ñu am cette possibilité-là bu ma génnee Sénégal bu ma duggee Gambie je continue à avoir le même réseau su ma demee Mali ainsi de suite ainsi loolu aussi je pense que war na mën a am parce que des gens l'ont essayé te ñooñu aussi euh, euh, du ñu ay du ay malaaka di leen remercier di leen féliciter ngeen gën a góorgóorlu ci jub jubal jubanti bi li gars yi bañ a dégg mais Sénégal moom dana soppeeku bu fi kenn jooy nag yaay yaay booy tuuti nga xaw ñu jooyloo waaye nag il y a des a des moments où on devra se et on va se séparer incha allah DPG bi nag waa ji mi ngi ñëw de. merci cher collègue Serigne Abo Mbacké Thiam vous avez la parole suivi de Adji Diarra Mergane. merci monsieur le président monsieur le ministre maa ngi leen di nuyu di nuyu seeni collaborateurs di nuyu chers collègues di la. féliciter ci nomination bi madame la ministre di ñaanal yaakaar bi nga xam ni le peuple sénégalais am nañ ko ci yow yàlla bu yàlla tas yaakaar te lépp nekk njëriñu Sénégal madame la ministre tey lan moo tax loi bii nii ñu koy examiner mu am solo parce que tey boo xoolee lu ëpp ci frontières yi ay source de conflit la doon nekk mais tey bu fekkee tey loi bi dafa ñëw dafay renforce li nga xam ne moo jëm ci coopération mais ci développement boo xam ni ñun dañu koy euh, partager parce que frontière yi da doon nekk ci loo xam ni ay barrières la doon nekk au lieu que mu doon ci ci ci li nga xam moo jëm ci commerce bi njënd ak njaay bi mais interaction humaine bi nga xam ne moom moo doon am loolu la doon nekk au lieu que mu doon nekk catalyseur boo d'échange boo xam ne et de coopération entre ñi nga xam ne moo nekk état yi ko soon donc Sénégal ak pays yu bëree bëri dañoo confronté woon ci li nga xam ne loolu moo jëm ci problème yooyu moo xam ci li nga xam ne moom la ñuy xoo euh, yoree suñu frontières yi moo xam terrestre la moo xam maritime la ak ñi nga xam ne ñooñu moo nekk suñuy voisin moo tax tey mu am solo pour que ñu mun ñu mën a ratifier li nga xam ne moom moo jëm ci euh, convention bi nga xam ne andi nañ ko parce que ratification wu traité wu ñaame bii nii ay avantages yu am yoo xam ni am na ko jëm ci direction yi nga xam ne moo jëm ci wàllum commerce ci wàllum coopération ci wàllum partage donc dafay ñi nga xam ne moo nekk état yi ci beaucoup de domaines boo xam ne jamono ji ñu toll la sécurité transfrontalière dafa nekk lu am solo parce que on fait face à la montée li nga xam ne moo jëm ci des menaces transnationales telles que li nga xam ne loolu moo jëm ci terrorisme li nga xam ne loolu moo jëm ci trafic d'armes li nga xam ne moo jëm ci la traite humaine et li nga xam ne moo jëm ci des crimes organisés donc une coopération renforcée entre les états dafa nekk loo xam ne lu essentiel lu am solo la. et li nga xam aussi bu fekkee tey dañoo signé li nga xam ne ratifié li nga xam ne moo nekk convention bi dina permettre Sénégal mu mun engagé ci ci ci li nga xam ne mooy promouvoir ay projets transfrontaliers yoo xam ne dafay jëm ci dans les domaines des infrastructures jëm ci commerce ci agriculture mais aussi renforcer li nga xam ne moo nekk ZLECAf bi nga xam ni mooy zone de libre échange continentale bi nga xam ni li nga xam ne moom la mën dugal ci koom-koom par rapport ak li nga xam ne moo nekk suñu commerce bi dafa nekk lu am solo et que ci suñu ay ressources yu bëri yoo xam ne dañ koy partager entre li nga xam ne moo nekk des états moo jëm ci gisement minier yi moo jëm ci forêt yi moo jëm lépp donc tey convention bi dafay permettre ñu am gestion boo xam ne dafay concentré mais équitable